sànq en 2015 2016 def na Carila dafa survolé dafa survolé championnat remporté un doublé à la limite mais AS Douanes depuis l'année dernière l'année on peut pas comptabiliser la saison parce qu'elle était naze à cause de la Covid maintenant mbas moo tax euh, mënuñu comptabiliser saison parce que championnat amul woon parce que tey dañuy fàttali tamit fédération moo désigné Teungueth Football Club parce que moo nekkoon leader à l'issue de la phase année mu dem représenter Sénégal à la coupe de la ligue euh, ligue en Coupe CAF les deux équipes n'ont pas déçu parce que tey sigil Sénégal pour se qualifier à la phase de poule merci à toi Mamadou Dieye on reste du côté de la Petite Côte parce y a eu un incident un incident entre Génération Foot et Mbour Petite Côte et Génération Foot y a une blessure une blessure qui aujourd'hui te passe passe de commentaire parce que on va suivre ensemble l'image dañuy fàtte parce que football histoire de contact gaañ am mais est que l'arbitrage Euh, kan euh, notre représentant notre correspondant du côté Tcherno Tcherno Tcherno Daf du côté de Mbour juróom-ñetteeli bés championnat national de football bu Ligue ci match bu ñu joué ñaar fukki fan ci weeru février ci atum deux mille vingt bi ñu ne ñu ngi ko doon footballé ci complex La Tanière Villa Bruno Metsu ñeenti waxtu ci ngoon jot na arbitre bi di Sidi Bara Fall walis ngir match bi wara a tàmbali. jongante gi metti na te tar na donte ne équipe bi di Mbour Petite Côte moo xaw a dominé pàcc bu njëkk bi dafa jeexe ci ndam demul ndam dikkul ginnaaw ne kenn dëggulul sa morom dara bi ñu dellu ci biir terrain bi nag ñoom waa Pélicans yi ñu gën a taral seeni domination waaye waa génération foot yi ñoo ubbi score bi te ki dugal bi bi moo Jean-Louis Barthélemy Diouf jamono bi ñu jongante juróom ñaar fukki fukki simili ak ñaar waa Mbour Petite Côte amal benn changement Jibril fay jël place Abdou Khadri Diassi ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom ci benn bal bu gudd bu jóge ci ndey joor ga dem ci càmmoñ ga papsi di góor bu njool bi góolul génération foot mooy génn bi mu doon génn waaye laal na tànku Jibril fay ki doon xaar bal bi foofu la musiba bi amee ndax moom Jibril Faye fa la tànkam bi damme di yegsi arbitre bi ci wàllu boppam li mu def moo di dafa ne nañu dégager six mètres footballkat ñaari équipe yi ku ci nekk di jooye boor terrain bi fees dell ak ay nit ñu dakkal jongante bi ay simili yu baree bari ci gis-gis yenn ci ay arbitre yu ñu jànkonteel te ñu wax seeni tur waxtu woowu arbitre bi li mu waroon def ginnaaw bi mu gisee ne joueur Mbour Petite Côte bi gaañu na moo di dellu si ci ndogal gi mu jëloon maanaam may waa Mbour Petite Côte penalty ba bopp muy bu jaune wala bu rouge jagleel ko góolu kii di génération foot benn défenseur bu mbuur Petite ko arbitre bi daf koo jox carton rouge ndax dañoo jàpp ne dafa saaga arbitre bi parce que jamono jooju saaga yaa ngi tar ci biir terrain bi ginnaaw bi ñu taxawee lu mot ñaar fukki simili jongante bi footballuñ ko match bi dal di jeex waaye moom arbitre bi sax bi muy génn terrain bi ndax yàlla ak woy takk der yi waaye it ndax yàlla ak mbay bi nga xamante ne moo doon dalal ay football katam saaga yi jibee fu nekk nag ñoom supporters yi nee nañu nag lii yëpp du ko waral moo di mer bi nga xamante ne ñoom waa fédération sénégalaise de football moom la ñu guuxal seeni club bi rawatina seeni njiit di mbay Diouf ja ndànk-ndànk stade bi nit ñi daal di dem ci xibaar yi ñu taataane moom Jibril Faye moomu tànkam bi ñaari yoon la damm te ñàkkul sax ne altine gi dinañ ko opéré bu àndi ndogal yàlla ci hôpital. Mbour. Thierno Daaf. a à regretter arbitrage.